Amina Samb tournée sociale xanaa benn gaal bu ñu kii yoon ubbil ko koñ bi di ci liggéey ak ñoom di sant yàlla nag ndax suñ borom jàppale nañu ba am nañ ci lu kawe suñ yort ndax bi ñu koy tàmbali metti woon na trop waaye instant bi nii yàlla kàttanal nañu ba fépp fu ñu bëggoon mu yegg fa wax dëgg yàlla dem na ba dépassé foofu noonu 200 personnes waa sonn bi sonn bi nag méttiwul ndax kuy sonal sa bopp te man ku ma xam-xam ma ci social ba tax na ak lépp lu ma mën a daj ci social du metti ci man ndax dafay nekk mbégte ak bànneex ci man ndax social rek lay dund waaw docteur Ablaye Ñaam day sama càmmeñ di sama xarit soxna maam soxna Mbàkke di sama xarit di sama sëriñ yàlla dogal tamit mu nekk doomi dëkk bi ma gis mu yëngu ci social di jàppale waa dëkk bi loolu noonu nag nekk jikko bu ma neex tax ma dem ànd ak moom di liggéey ak moom te liggéey bu may liggéey ak moom tamit jàpp naa ne ki ma ci njëkkoon waxtaanal tey jii mi ngi ci jataay bi muy persisé PDS keroog bi ma ko laajee ne ko papa damaa bëgg a dem liggéey ak doctor ab Ablaye ñaan daf ne ma xam naa ko bu baax ndax yàgg na ma ànd ak papaam te nit ku baax la wax ma ci moom tamit ay jikko yu ma neex loolu ma sam waxoon nag teg ma ci yoon yaakaar naa ne bokk na ci li waral suñu ànd bi tey mais nag bi ñu demee boobu noonu dama demoon pour jàppale ko rek mais bi mu jàllee dama ñëw sama kër toog am sama benn rakk boo xam ne dafa ma jege di sama xarit dëggaat ak tànkam ba ñëw sama kër waxtaan ak man ne ma naa mënoo faa ñàkk nañ dem nga liggéey ak Ablaye sa càmmiñ la te kenn warut jiitu ci yow ñi koy jàppale fii ci département bi ndax xam naa sa njàmbaarte xam naa sa taxawaay muy xale bu yaru ku ma bëgg ko xamne ne lo xamne duggal ne dugal na ma ci inshallah rabbi dama ci dugg ndax gis na ci mom ay qualité yo xamne ne qualité yu ma neex la muy khadim Touré maa ngi koy sant bu baax di ñaanal jaam. waye nak kula may gaaw won la nuy nappé may na la ndawal lu du jeex ñun nak ñuy sant yalla ndax wax deug yalla bañ commencé ba légui si ñi ngi ci yoon bi gën social mom comme li la waxoon rek. social moom dafa nekk suñu deret ndax dañoo juddu fekk suñuy waajur di ko def man sam ku ko xam-xam ko ci social sam papa da daan yor dépasse suba nit ñëw soxla ko mu jox ko ko ma xëy dem ne ko papa damaa bëgg a dem marché mu ne ma ki nga gis mu génn léegi nii yóbbaale na kon kooku bu dee def social warta jaaxal kenn maa ngi koy ñaanal fa mu nekk yal na xippee àjjana ci barke Seexul Xaddim wala Mondoy jiite association pour le développement durable mouvement pour le développement solidarité et partagé Wa, Amina day jigen ju jàmbaare Yalla dogal bima créé mouvement bi di ci yëngu ak jigéeni dëkk bi di leen sampal ay avec di yëngu ci walu social mu sollicité won ma ci mom ak soxna njoba ak ñimu andal àndal vraiment rëccu ma ben yoon bima andé ak ñom ndax bi moy suñu deuxième année daaw def nañ ko heure bi daaw ma ñëw fekk na sedd sampal naa leen kees lu toll ci diirub ay 8 mois matul sax ah matul sax 10 mois mais bu ñu ko séddalee mi ngi tolloon daaw ci 10 million bu ñu jógee itam dafa mel ni mbooloo mi dafa gën a yokku ndax daaw mi ngi tolloon ci cent personnes mais tey mu ngi toll ci 200 personnes kees bi itam bi ma leen ko sampalee mën naa ne fii may wax ak yow mu ngi toll ci cinquante semaine nekk 10 mois tey bi ma ñëwee bi ma dépouillé kees gi tolu na ci 20 millions cent cinquante mille euh, muy accès yi muy social yi muy intérêt yi muy bénéfice yi yëpp ñu bolé ko nak comme yalla dogal na dafa am ay jigéeni jambar ño xamné ño ci bokkoon di ci denc sen alal ñu dajalé len tay pour kenn ku ci nekk la nga ci doon def ñu jox lako ndax ñun ben concept rek lañ am moy suñu dajalé su 18 safar bi ñëwee ñu sédalé ko après ñu créé waat motax mouvement bi dama ko tudde rabal lambal yattal la gaal dama ñëwoon fekk fi mag ñi naan man napp may la jangal nu ñu nappé ko gën ga waye man bima ñëwé daquma lolu mais dama andi rabal la mbal yatal la ga ndax japp na ne ki créer ren mu nekk 10 millions ki créer daaw mu nekk 10 millions ren nga ñëw am 20 millions te bokul ak euh, matla yi nga xamne jënd nañ ko ses yi nga xamne jënd nañ ko bassin yi nga xamne jënd nañ ko nga xamne lolu lepp tay ñom ñoko momal seen bop fofu la social mëna yam Euh, loolu nag ragal naa ne bu ñu ci amee ak njàppandi moom mii ci la bokk ndax moom itam wane na ci ak njàmbaarte wane na ci fulla wane na ci fayda kon li may digal jigéen ñi rek mooy ñu gën a góorgóorluwaat xam ne affaire yi comme ni ma ko daa waxee toujours mën na dem ba wecc lu baree bari ci dëkk bi ndax mën na wàññi soxla yi mën na wàññi jafe-jafe yi en même temps dafa am ay intérêt yu baree bari yu ci nekk ndax ci biir ci biir accès bi bu ñu la ko sampalee soo doxee diirub un mois deux mois jigéen ñi xaalis bi ci nekk dañ koy génne di leen ko jox ñuy dem di ci liggéey bu ñu demee di ci liggéey di ci teg ay intérêt intérêt yooyu ñoom ñoo ko moom bu ñëwee dañ leen koy bindal ci seeni i kaye xam nga loolu rek ay avantage la tey boo demoon si yenn banques yi boo lebee xaalis dañ lay topp intérêt mais ñun dañu fexe ba boo bokkee ci kees gi am na fonds yoo xam ne mën nañ la ko jox nga dem liggéeyi jël intérêt bi delloowaat ko nga moom la ko sa bopp yaakaar naa boo xoolee jigéen ñu ci bari seen i intérêt rek bari na trop yaakaar naa loolu ak ñàmbaarte la social bi itam dañ ko def pour dimbilante mais suñu demee ba jour bi su yàlla dogalee am na ay cas yoo xamante ni dimbali nañ leen bu passé dañuy jëlaat social bi delloowaat leen ko en même temps pour gën leen a renforcer pour ñu gën a dëgër daal jubluwaay bi ñu ci am nag mooy gis nañ ni jigéen ñi dëkk bi peut-être xañ na sonn nañ nag euh, war nañ leen a gën a jàppale te pour le moment man li ma gis mooy jàppale gi di fu ne nga jëm foo wala ngay wax mooy da ngay jéem a créer dara daal moo tax ma jéem a créer yi vraiment yaatu na lool ci dëkk bi nag ndax boobu ba léegi ñi ngi ci ba tey soxna Amina ñu ñëw ci moom te dañuy continuer ba incha allah le 19 wala le vingt sax la ñuy arrêté te yaakaar naa ñu ngi commencé woon ci mois de juillet bi kon xam nga affaire yi xaw na yaatu depuis. bon li may njëkk a wax.

comme Touba moy deuxième capitale du Sénégal kay président de la République warna fi fee mën wala lu bon bon ministre d'État kon buñ né Touba mënul am ministre jàpp naa ay tiaxana gi tapalé la Ablaye Niane warna nek président de la République ndax ñi fi nek ni, gëm n'a ne mo leen man ci compétence ci côté développement ci côté yépp peut-être loolu nag ba koy wax ñu ha ah, boobu anduma ak moom mais dama amone benn gëm-gëm ci ne war naa mën a nekk lool ma ma proposé ko loolu boobu ba léegi nag mi ngi ci xaj na teggiwul tànkam mais maa ngi koy wax mu gën a góorgóorlu di ko yóbbante délégation bi di ko wax ne daal na gën a jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ndax olof day wax ne euh, jote day jiitu jote te jàpp naa ne nii mu jàppe soxna Amina jàppe ko délégation ak ñeneen i ndaw ci biir dëkk bi su ko yaatalee ragal naa ne projet élection dina am dara ndax am naa yaakaar ci ne yii passé moom ay référendum la woon askan wi ñoo soxla woon mais ku gis fi mu tegoon tànkam ak fi mu jëmoon am naa yaakaar ci ne mën naa am dara daal ëllëg li may wax nag lance li may lancé appel mooy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi def politique nañ ko boole ak liggéey liggéey dafa am solo trop te dama jàpp ne mën nga nekk nit kuy liggéey di jariñ sa waa kër di jariñ sa gox di jariñ sa bopp ba pare du tee ngay def politique mais département bi nag ñun ñoo yablu suñu bopp boo xoolee kenn considéré wuñu pourquoi mooy dañu jël teg ñu rek à côté suñu soxlaa ñëw utiliser ñu buñ paree ci ñun dem yaakaar naa nak warna jeex comme kuy falu fi ngay falo mais kuy follikoo fi ngay follikoo ndax Touba kuñ wan ginnaw nga dem yaakaar li ci suñ kanam wan nañu ko election bi passé yaakaar Touba mo njëkk wax ni wi kon ragal na ne ndawi Touba war nañu bayyi xulo bi ak xex bi booloo nekk benn am ben objectif bi moy fexé ba Touba ñu jëmbat fi donte sëñ Touba def nako fi nak

maa ngi lancé appel état bi fi nekk mu xam ne fii ko fi falu gone yeeg jigéen ñi ñoo la fal ñu bañ ne falu nañ rek teggi seen tànk nañ jàppale jigéen ñi te peut-être jàppale bi nag wute ak bi amoon mooy jàppale rek ci aw tur jàppale ji nekk ay jëf yoo xam ne day dem ba agsi ci ñoom mooy fexe ba créer leen formation ay centre de formation ñu fexe ba am ay emploi buñ leen former rek taxawal leen dëgg dëgg dëgg danañ dem te bu ëllëgee lu ñu créer pour mu dem dana yomb mais suñu dëkk bi loolooy problème bi dañuy ñëw xëpp ñu ay financement financement yi ñett séddoo ko lekk ko mu jeex loolu dafa war a jeex ci dëkk bi il faut que ñu créer jigéen ñi former leen wut ay action teg ko nit ñu ku xëy xëy ci dara mais Touba fi mu toll boo xoolee transport fi am ak commerce kon liggéey amu fi ndimbalu sëriñ bi rek la ñuy dundee tey amul usine amul géej amul dara transport ak commerce moo fi nekk jigéen ñaa ngi ca commerce ba góor ñaa nga ca transport ñi ci des ñëpp liggéeyu doole la ñuy liggéey pourtant loolu war na fi mën a jeex nag jàpp naa ne mais loolu nañu boole suñu doole mu nekk benn ñu ne politique du lu sax kenn ku ne dem liggéeyi mais ñu bañ a nax itam responsable yi mooy su la responsable wanee ginnaaw soxla la ci barab nga terrain dem liggéeyal ko ta bañ a wane ne man kat su ñëwee nga wax ba sam ñeex safu nyu te doo lakk dara ñu bari nañu perte ci département bi looloo leen pertal mooy da ngay gis koo xam ne danaan ma fi nekkal diw ta koñ ba nekk sax mënu ko gañe dafa liggéeyut

majorité boobu nag bu ñu ko bàyyee état bi nañ taxaw ñun waa Touba laaj suñu wàll la ñuy wax sarax leen donga baa mu ci bëgg dooleem te am na ay parti yu fi nekk nañ fexe ba ñu yore ay parti dëkk ci dëkk bi ñu jiital leen te jàpp leen te bañ leen a nax asalaamaaleykum wa rahmatullah